ndeysaan maam Cheikh Pape Modou Mbaye grand monteur mbokk yi yéen ñi nga ni yéen ñuy suivre Bantamba TV mbokk ñoo ngi fii ci arène nationale ànd ci Mao Cissé ndeysaan tey ci bis bu ci bis bu mag ci wàllu lamb tey ñu tuddee grand monsieur doom ci Youssou maa jigéen Ndour waaye ci teewaay monsieur le Matar Ba maa ngi lay félicité bu baax a baax waaye ci teewaay président du CNG de lutte arbitre bi wax naa ñaari mbër yi wax na leen ne lamb nangu leen làmb ko ndeysaan nee na leen sifflé moo leen boole waaye moo leen di tàkkale arbitre bi sifflé na combat bi guy gi daw na génn consigne la dawal génn ñëw jël sa avertissement waaw waaw ndeysaan Seck Seck président canal 4 bu gël tàppe moom la ñu dénk awa mu baax mi maa ngi koy nuyu mbokkum nday Papa Sow Pamadou Mbaye le grand monteur Seck président canal 4 amateur bu mag la fii ci réew mi ndeysaan di nit ku baax di nit ku bëgg Bantamba TV di doomu bi dinaa maa ngi koy nuyu bu baax a baax public bi jóg nañu ndeysaan guy gi ma ngay jat ma ngay jat saa bu masaan jat ba ñëw ba pare day ñëw xolal xolal loolu waaw waaw xobu fastan la guy gi ju laay daay la laa loolu lépp tottal la day tottal xobu fastan day tottal waaye guy gi nee na ko li jëntiwuma loolu fi ko dóor yëpp jël na ko xëppoo suuf si laay laa ndeysaan loolu lépp ci làmb la bokk waaw waaw am na benn benn sortie délibérée la day am benn avertissement arbitre bi si loo na combat bi waaw waaw wa dem na këng waxi mag dem na nit taali pàkk war na mbaam ndeysaan Pape Modou Mbaye le grand monteur bés bu màgg a ngi nii ma aw Cissé lañ ci àndal tey ndeysaan esat baa ngi na tekk ndeysaan amateur yi wisi nañu tey lamb ji ndax bés bu mag la ndeysaan ndeysaan ñi ngi lewtoo kan mooy njëkk a dem ndax Reug Reug dina dem ndax Reug Reug mooy xale moom moo wuti moo wut si moo war am moo bëgg am ndax dana dem wala guy gi bu taxawee lu yàgg gisul lu mu xam ndax du dem ah déet wóoruma de damay laaj rek ndax tey bés bu doy waar la arbitre mi ngi wax ak ñoom waaw waaw da leen di jox avertissement verbal nee na leen bëri leen bu ngeen bëriwul dama leen di jox avertissement bëri leen lii indiwul fi amateur yi yéen ñaar kenn ku nekk ci yéen ñaar dem naa ci sa open press ku ci ne am na loo waxoon kàddu googu nga waxoon na nga ko dëggal tey ndeysaan ñu ngi léwtoo ñoom ñaar ñëpp ay pied gauche ñu ko ci nekk pied gauche nga teg waaw waaw rëg-rëg ak guy gi ndaysaan Reug Reug Gouye Gui ñu ngi lew wala lewtoo nu sax ku ne da nga taxaw fi nga taxaw rek ne teg lii du lamb ji de waxu leen woon lii de Reug Reug waxoo ma woon waaw waaw avertissement verbal ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi ne taxaw yaa ngi taxaw te teg di déglu sa morom arbitre bi daa arrêté combat bi jox leen avertissement waaw waaw bëriwu leen lii lan la Reug am nga benn Gouye Gui am nga ñaar ndeysaan combat bi nga xamante ni amateur yi dañ ko bëgg combat yi nga xamante ni amateur yi dañ ko yàgg bëgg wut ko fu ne combat bi bi mu taxawee bi ko bi ko Reug Reug ak léegi man na quatre image bi mën ngaa ko génne wala ngeen dem BMTV ngeen xool keroog bi ma fekkee Reug Reug caaroy géej dafa taal gaal gi ñu daw lu bari ci biir géej gi ñu toog ci benn maaru gaalu maari saxaar mu ne ma guy gi laa soxla moom lan ma war a jox ma defal ko affaire la nga waxoon boobu ba léegi keroog buñ la fekkee sooban presse lool nga wax xale nga yaa wut si boo taxawee guy gi taxaw combat bi du mën a neex tey amateurs yi kon du nu bëgg Reug Reug ba tey mi ngi lee mi mi ngi leemu arbitre da koy arrêté waat léegi jox leen avertissement du ñu nee na ko ñëwal ah non mais c'est vraiment dommage waxu leen nu woon lii waxu leen lii xaar ñu woon lii man de dama yaakaaroon ni combat rapproché ngeen di bëre waa arbitre bi woon na arbitre de la ñuy waxtaane ñoom waaw waaw bëriwunu waaw nee na ko dellul waa arbitre bi nee na lan ngeen bëgg yéen lan ngeen bëgg lii lan la waxu leen ni woon li dëgg la avertissement verbal ngay am foofu arbitre sifflé na combat bi Reug day dem waaw day dem day dem arbitre bi yéex ngaa wax day dem parce que moom moo wut si waaw waaw Reug Reug sànni na benn coup Reug Reug ak Gouye Gui ñu ngi damante ay baaraam Reug Reug ak Gouye Gui ñu ngi damante ay baaraam bu nu jàppantee lamb ji day jeex laa ilaaha illallaah waaw waaw daje nañu Reug Reug sànni na benn coup guy gi day xeex ak moom waaw waaw dañuy xeex lii la amateur yi bëgg jàppante nañu nag laay laay la ay waay jàppante nañu rëg-rëg ak guy gi rëg-rëg am na ngemb guy gi bal na ko mi ngi door ay hypercule rëg-rëg laay laay la kullu kuy bëre way wi yaa ko moomee rek waxoon na ko rek rek waxoon na ko maam Cheikh ndeysaan rek rek mi ngi def fair play ñëw na jël si magam guy waaw waaw joŋante noonu foo agréé la làmb jëm du ñaaw kon wóor na Serigne Touba Balla Gaye wala Daande Gueye soluñu Sa Thiès Balla Gaye am na problème Ama Baldé am na problème waa Géejo am nañ problème soxlawuñu Sa Thiès xale bi foo ay wuyeeg mooy yëngu si moom ay jóolóor yi Reug mooy seen baay bilaay mooy seen papa mooy seen baay may wax ni xale bi dafa yàgg mbapat ñafe bay bal la la roi des jaarooy Tukulóor ñooy yëngu si moom xale bu. boobu sigil nañu barki sëñ Karim Mbacke. loo wax loo wax. non tey dama la gis nga aalu lan wax. barki sëriñ Abdou Karim Mbacke. Modou Lo Ama Baldé. ku daan pare nañ pour bëre yow. Modou Lo Ama Baldé soxlawuñ keneen ci lam. grand sa waay sa waay da ngay ne wan. contour gris 2 ko def peese ba mu jóg mu daan ko. royal bi ku pare nañu jël. loolu rek lay demee. nee bu xeexul. waaw xeex bi mooy avantage ci rëg-rëg xeex bi mu ubbee mooy avantage am te lamb ak avantage la ñëpp dañoo demee rëg-rëg ci bëre bi mais xeex bi mooy nekkoon buntu bëreem bay bàllam boobu. jaajëf Nice. lan moo tax tey caaxaan yëpp génn tey. ana ba xaaral ma jël sama drapeau. jox ñu bomb. ngeen lan. bomb. da ngaa bëgg bomb da man moo tax maa ngeen mi mu tax ngay wax loolu. man xam naa ne lii du ko jeex na ma soxla du ñuy. jeex na. Eh, loolu wóor na. non non non moom kay avenir la non avenir la donc. na moo tax damay bëre kii ma bëri. non moo ma la laaj ah. moo ma la ma taar moo ma la laaj. rek eh, rek. rek rek. incha allah léegi lan nga. waaw eh, merci beaucoup. ma lambaay yaa ngi lambaay. grande baa ngi ci maa jooja dëgër ma ca ngoonan lu rëy la maa jara baax ñoo jara falal ñoo jor sax yu tàkk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal